comité sénégalais de droits de l'homme ci lëkkaloom ak ak UPR info mu yor organisation non gouvernementale bu féete ca Suisse amal na niki tey ab atelier de renforcement bu soxol organisation yi nekk ci société civile bi lii nag dafa bokk ci wàccaay ñeenteelu cycle examen périodique universel. atelier bi nag daf ñuy gën a yokk ay jumtukaay ñu nag société civile muy comité sénégalais ak société civile parce que umpalewu leen ne que dafa am rôle bu am importance bu ñuy joué cycle examen périodique rawatina fi ñu jëm. Euh, en janvier 2024 nga xam ne Sénégal dafa war a delluwaat Genève devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour présenter son rapport national noonu lañ koy defee également à partir de tey ñaari fan pour que société civile ak comité bi comité sénégalais des droits de l'homme ñuy renforcer seeni capacité ci taxawaay bi ñu war a am ci wetu état du Sénégal ci lu ñuy wax par exemple euh, ni ñuy defee rapport euh, alternatif wala rapport complémentaire. examen périodique universel doon na ab processus bu ñu xaymaa état yi ci engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko nga xam ni nag société civile am na ci wàllu wu rëy. Sénégal demoon na ci Genève ci li ñuy wax examen périodique universel ah nangu fa li ñuy wax téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom-ñeenti recommandation yoo xam ne defoon nañ ko moom mu nangu ne dina ci def ay jéego tax hyper info ñëw. wax ñun organisation société civile ak comité sénégalais naka la ñuy mën a tëggee suñuy rapport état bi day def rapport am yóbbu waxe lii laa def ñun aussi am nañ possibilité def suñu ay rapport ne lii état def na ko lii des na lii lañ war a def te defuñu ko. ci ñeenteelu cycle bi nag Sénégal dina fësal jéego yi nga xam ne jot na ko def ci engagement yu mu jëloon ci bi ñuy jeexal ñetteelu cycle bi ci atum 2018 loolu moo tax ñu amal bile atelier ngir gën a waajal passage yu Sénégal ci atum 2024 foofee ca Genève.